Touba ca kanam jërëjëfati Serigne Touba mbokk social Ramadan édition 2021 wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani Touba baat Touba ca kanam ak commission bu amaana di commission sociale ci njiital Serigne Mourtada moom Serigne Abdul Fattah ak jàmbaar yi nga xam ne ni ñoom lay àndal guddi ak bëccëg ni ñu ko baaxoo di def at mu jot ren di ñeenti at commission sociale bu Touba ca kanam nii lañuy ñuy wëree ak di nemmeeku ji ñi nga xam ne dëgg dëgg ndimbal ñoo yayoo ay jàmbaar yu góor ak yu jigéen am pas-pas sawar lool ci li ñuy def seen yitte yépp ci taxawu doomu aadama la moo xam muy guddi moo xam muy bëccëg moo xam muy tàng moo xam muy sedd équipe bu recensement yaa ngi nii mbokk yi ci ñeenti xibla yépp lañ leen di yabal ñu daw lu sori ba fekk ñi nga xam ne mbokk yi ñu ngi nii nii lañ dëkkee nii lañ nekkee commission sociale ànd ak ñoom massawu leen coono indil leen nuyub Touba ca kanam dalal seen xel fas yéene ànd ak ñoom ci jafe-jafe yi gunge leen ci seen kem kàttan mbokk yi laaj borom kër ga wax jigéen ñi bind leen enregistré leen kii bind ticket yi bind ticket yi jox ko borom kër gi xamal ko ne ndimbal yi ci kanam di joxe xaaruñu ngeen ñëw laaj ko de dañ leen di wër ba fekk si leen fi ngeen dëkk te ku gis xam ne yeyoo ngeen ko ñu jox leen ko bés sangam barab sangam ngeen koy jëlee Touba ca kanam commission sociale faggu ay magasin ci xibla yépp kenn ku ci nekk ñu xool fa la gën a jege ñu yabal la fa jëli fa saaku ceeb gorosu suukar tàndarma ngir gunge leen jàppale leen ci weer wu sell wi mbokk yi nii la commission sociale di dooree liggéey bi ci recensement bi gis ngeen mbokki taalibe yi mbokk yi nii rek lañ koy defee ba lu toll ci ñaari junni borom kër ak juróom ñaari téeméer ak lu topp commission sociale fekki na leen fas yéene leen dimbale ci weeru sell wi mbokk yi wasari xayri wa kulli fitanin waltaqina sara nasara wasarra iblisa wa kulli sijud waljil wa dajali fi sudani في زرق والمغرب والبيدان وسرما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اختتما يا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل ba bés bi nga xam ne nag le journal lancement bi kon mu ngoog tey mooy bés bi nga xam ne moom la ñu tànn kilifay Touba ca kanam yi daje ngir lan ngir door li nga xam ne mooy joxe ndimbal yi ñooñee bon yooyu te fekki leen ci seen dëkkuwaay yu sori yooyu sëriñ Abibu Mbàkke sëriñ Abdoulahat ak kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Touba ca kanam président commission sociale bu Touba ca kanam ñëpp daje ci kër sëriñ Touba gi ci Daaru Marnaan ne tey nag mooy journée officielle lancement journée sociale Touba ca kanam édition 2020 هل يصلي ابدا خير الصلاه بأهل رافق الخيار والصغار وابلنا احسن الذي اتانا وترك ما في لما نعنا حتى يكون كلنا في الركات مقتديا بسنه وسكنات وراجنا بجاي من دغوى ولتكفي عنا كسبا ولهوا ولتكفنا عواما لا يغني بك وادابا اخنا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة عوسا من ذنوب ياس مؤملا يا بر رحمتك ارجى عندنا min amalin nasibuhum faghfir lana ci la commission sociale di leeral nag mbooleem luñ ko joxoon moo xam muy ay koppar moo xam muy ay bagages lenn lu ci nekk fa mu jóge laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam ñaata borom kër lañu dimbale ñaata lañ jot ci koppar ba lépp leer ñu àndandoo ci njiital Serigne Abibou dem ci magasin yooyu nga xam ne nii commission sociale bu Touba ca kanam faggoon na ko ngir séddale ndimbal li nga xam ne ñi ko yayoo rek lëkk commission sociale di jox Serigne Abibou ngi nii mooy njëkk a joxe ndimbal yi. lii la ticket bi mooy ñëw ñu xool ndax tur nga ca biir ñu xool ndax mandarga yi ñu koy xàmmee nga ca biir ñu xool ndax mooy borom kër ga ñu recensé woon ndax méngoo na ak ticket bi ñu ne ah mu ngoog jox ko li nga xam ne mooy ndimbal kilifa yi ma àndalit def ni moom liggéey ba door na mbokk yi waaye bés boobu it mbokk yi ndaje mu am solo mu am maanaa ndaje coloré ndaje fàttaliku sunu jàmbaar yooyu nga xam ne dañoo des ca tóokóor ba te Cheikh Mamadou Mourtada ne ay chéit lañu Touba ca kanam ak commission sociale ci njiital sëriñ Abibu ndaje mu dayoo yaram la daje ak way juru jàmbaaru sëriñ Touba yooyee ak lim bu takku ci dund ak lim bu takku ci ay koppar du koppar yi de du dund bi de waaye dañu ñëw nemmeeku si leen ngir wax leen ne duñ leen mës a fàtte suñu jàmbaar yooyu dañuy wéy de ànd ak Touba ca kanam ci lépp lu muy def waxtu wu nekk loolu mooy tànk yi nga xam ne Serigne Abibou ak kilifa yi nga xam ne ñoom laa dal ak commission sociale dox nañ ko seeti sunu mbokk yi daanu woon ca Tookër ba rabbana aqbal nasmana bi hurmati al-hasani wal husayni ma hurmati kulli man hilasa bil jamam wa hurmati al-banina wal banati wa hurmati al-ali ma'a zawjatin wa hurmati ar-rusuli wal anbiya'i wal hulama'i ma'a al-awliya'i wa xurmatil malaayikil xurri kiraam wa xurmatil kabati baytikal haraam wa xurmatil bayti muqaddasil aziim wa bi madinati rasuulikal kariim commission sociale bu Touba ca kanam noonu la ko defee ci association yi xam ngeen ne association handicapé yi Serigne Mourtala moom Serigne Abdoul Fattah nee na bu fekkee ne handicapé mooy ku manqué ñun ñëpp ay handicapé lañu sunu mbokki taalibe yi nga xam ne. ñoo jiite association yooyu commission sociale bu Touba ca kanam ban leen xel ci lim bu takku ñoom ci dund ak ci koppar yu jël si dund gi waaw képp ku ñu jox sa ceeb ak sa suukar danañ la jox paas boo ko yóbboo bu toll ci ñeenti téeméer mbokk yi ñu noonu association yi ñi ñoo jiite ñu ngay sant ak a gërëm فلتفرقا بيني وبينه السليم أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عاصم كل أن وصنام أنا الذي لست عميل أبدا إلى سواك هنا ثم خدا waaye mbokk yi ndigal li sëriñ bi joxe woon ca njaareem ñu di ko jëfee boobaak léegi te musta dakk di alxuraan yi nga xam ne dañu koy jàng suba di ko jàng bëccëg di ko jàng ngoon dara dara du tax ñu bañ koo jàng alxuraan jooju nga xam ne moo téye réew mi de lu waay di def na leen ci baxel loolu tax commission sociale bu Touba ca kanam dem daaray kaamil dooree ko ci jumaa ji ànd ak waa xidma ñëw nemmeeku si ñi nga xam ne ñooy jëfee ndigalal sëriñ boobu te waxtu nekk nag ñu ngi ànd ak ñoom ci commission sociale weer wu jot waaye tey journée sociale ramadan moo seet si daaray kaamil bu jumaa ji daaray kaamil bu daaru xuddoos beyti yaa fadlu anta sunata ya majidu anta abdi ya falan wasidu mawlaaya anta sunata ya nafiu anta abdi ya falan xaatiu anta allasi tuli muhibuka hudaa daaray kaamil sëriñ Sohaybu عن كل سناب وزور كل عين وتكفني يا أسى البقاء والخدم هذا الذي ماس إلي بالخدم وسر من يركب ساسلاي وسر من يطير ساجراين وسر من يعيش بالكلام وسر سدي والخيام وسر من ينفس في العقود وسر زائر وزي جودي بك أخت يا إلهي نزدا وآية وأغربا وأسودا داري كامل دارو منم وائلا وزائرا وتارغا والإنس والجن معنا نوال جميع من خلقناه في مالان بألف ألف لف لا حول ولا قوة إلا بالإله سلولا ونجني من شر ساكن البلاد وشر كل والد وما ولد والتكفني شرف من وعيني وكل من خصدني بالعين والتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من سلم كل سالم وسر كل جاهل وعالم وكل جاهل داري كامل بو دارو موتي bi ñu yegsee bayt yi délégation bi dafa fekk ñuy wàcce kaamilu alxuraan fii ci daaru muxti nga xam ne quartier la ca Touba wa kulli taayirin wa kulli maachin wa kulli xaamilin wa kulli faasin wa kulli aasidin wa kulli shaani wa kulli jabbaarin wa kulli jaani wa najjini yaa man taala yaa majiid min sharri jinnil maa shaytaanil mariid wa sharri zil qurbi wa sharri naayi wal arri wal bardi wa sharril maayi wa shawi dani wa inni abad wa tayril xalba wa shaa'il jasad وأمني الخيام في الليالي والزوم في النار بالإكمال وخلي من الرجائل وكل مجمل بالفدائل وشكل بي وافتى ربي ليا فضل مبينا لا يرى لمثليا ولي مساقة ونورا وفي السراط يسير المرورا وابي الذكرى بصدر كلهم وحدني من جملة المخربين daaray bu daaru salaam commission sociale ci njiital Serigne Mourtada moom Serigne Abdou Fata nii la ñu liggéeyee mbokk yi ci quatrième édition bu journée sociale Ramadan mbokk yi. ونفسي والخلق مدى الأسمان ولي في الدارين كن ماسا وفي مالي لا تسل ملاسا وسفيني خلبا وخلبا ولي ترخية وغبا وكن ولي في الحياة ولدا مات وفي القبر وفي الرقدا ولا تصلي في سهامها حافسا واجبا وراضيا وجاسبا ومسدا معلما وقائدا إلى العدى مكرما وهاديا وناصرا ومنفا لكل من ينفعني وبالتفا وبسلك المسالك الخلازي ولتكفني عن جملة المعازم وبسلك رب تاريخ الأولياء commission sociale ci njiital Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Fattah di sant bu baax nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne waxtu nekk ci daara yi waxtu nekk ci dund gi waxtu nekk ci taxaw ñu tawat ci commission sociale loxo ma nga ca moo cay jiitu de waaye di santit ñi nga xam ne lu ñu seen sëriñ bi tàbbi ca mooy jàmbaar yi nga xam ne feelu nañ ko ci lim takku ci commission sociale ak bokki taalibe fu ñu mën a nekk wuyu si nañ wooteeb commission sociale bi li ngeen joxe woon a ngi nii de ñi ñu ko joxoon a ngi nii nii it lañ leen ko joxe xaaruñu ñu ñoo laaj ko de dañoo dem fekki leen wëri leen daw lu bari sëriñ Moutala moom sëriñ Abdul Fattah nee na mi ngi sant mboolem waa commission sociale ci seen taxawaay di sant ñi nga xam ne muy guddi muy bëccëg muy taw muy ngelaw muy naaj muy sedd di jàmbaar yi nga xam ne ñoom laa dal di soxna di góor ñi di waa diaspora picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf liggéey bi daal la ngi ni mbokk yitte rekk la yéen yi nga xam ne kat naka jekk waxtu nekk yéen a ngi ànd ak social social kat lu ñuy barkeeloo de ni ñuy lekkee di ko naanee di ko soloo di ko doxee suñuy yitte noo ne la ñu war a taxawee ci commission sociale ndax kan mbokk yi ñi ko yittewoo bari nañ lool de ñi ko yittewoo yaatu nañ lool de ko kon nag ay ca mburit yitte rekk la bu mu dakk ndax commission sociale kat waxtu wu jot ñu ngi ci ñi nga xam ne dañoo yor ordonnance te amuñu luñ ko jotee commission sociale waxtu jot ñu ngi ci ñi nga xam ne dañoo war a def scanner tàmbali ñu ko defee commission sociale waxtu jot ñu ngi ci ñi nga xam ne dañoo war a def analyse tàmbali ñu ko defee commission sociale waxtu wu jot mu ngi ci ñi nga xam ne dañoo tawat feebar nanu mënuñu amuñu ko leen jàppale ñoo ñee waxtu jot jàmbaaru commission sociale yi ñu ngi leen di taxaw kon mbokk yi numéro yaa ngi nii lépp lu ngeen ci tabal mu yegg si ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi boo ñëwee ci siège ba ci secrétariat ba lépp loo fi indi mu yegg ci ñi ko yittewoo jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi mbokk yi yitte rekk la jërëjëfati Serigne Touba waaye jaaraama commission sociale bu Touba ca kanam mubaraka wa sayran li zalika wa